xaddiimul Moustapha yàlla nga fi yàgg te wér ci barkeb Serigne Touba dafa waxoon Cheikh Mouhamadul Bachir mii léegi ay kàddu mu war koo jottali waaye mu ñaan ko ne ko na kàddu yooyu na ko waxal ci làmmiñu boppam mu ne ko mbàkke xanaa kon ma jéem rek kon nag sëriñ bi dafa wax sëriñ Basiiru mii ne ko neel Cheikh Mouhamadul Mountakha ñun mbokki sëriñ tubaa yëpp sant nañu ko gërëm nañu ko noo ngi koy ñaanal ndax lii nga nu defal mbàkke tey jii boole nu ci ndigalul sëñ tubaa gii woo ñu ci kër sëñ tubaa gii yendoo ak nun bernde nu bernde yoo xamante ni yii yu am solo la loolu mbàkke gis nañ ko baax te jàpp ko baax muy lu rëy lu jombe loo xam ne mënut ko amal sunu bopp mu wax ne mbàkke àjjumay tey jii àdduna ba àdduna daj tubaa rekk ko am tey jii àjjumay tey jii amut lu àttanut tey jii ak fa nu jëm loolu de mbàkke mën naa ko waat ndax mbàkke loolu lépp nag yow mii la ko sëriñ tubaa baaxe nga baaxe ko njabootu sëriñ tubaa gii baaxe ko mbooleem mbindeefi yàlla yépp ngir bëgg ñépp jariñ ci sëriñ tubaa kon Mbàkke ñëpp bég na ci yow nun njaboot Sëñ Tuubaa gii de yow de Mbàkke la nu am yaay sunum Sëñ Tuubaa yow la nuy xoole Sëñ Tuubaa kon nag Mbàkke dimbalu nu rek naanal nu nu am kàttan ami xéewal di liggéeyal Sëñ Tuubaa jaare ko Mbàkke ci yow àdduna li muy rëy rëy li mu wax léegi rek bis bii tey bis bu rëy la gannaaw nag Sëñ Tuubaa woon ko baaxe nga baaxe nu ko mbàkke kon jërëjëf nun dey nun njaboot sëñ tubaa gi dey jàqunu tiitunu ragalunu ñeme nan mbàkke ndax yow yaa ngi sunu kanam lépp loo xam ne mi ngi jëm fi ñun te war sa ñëw mbàkke nga fangal nu ko loolu xamees na ko bu wér àdduna bii de li muy yëngu yëngu ak nu mu mën a mel nun de mbàkke yëgunu ko noo ngi sant sëñ Tuubaa bu baax xéewal yi bari na noflaay bi am na sonn mbàkke gita dàqunu sëriñ Tuubaa li mu liggéeyal yàlla liggéeyal ko yonent bi sallallahu alayhi wa liggéeyal ko mboolee mbindeef yépp coono yam ca jànkoonteel yépp moo waral mbàkke sun noflaay yi rek ndax mbàkke noo ngi nii rek bayunu gorun te mbàkke fu xéewal jóge jëm fi nun te sëñ Tuubaa rekk ko nu fàggul mbàkke te loolu démb la mbàkke te wóor nañu ne ëllëg lay raw li muy neex neex fii ci àdduna bii nu ne ba kenn ku ne jafe ne yaa ko indi sëñ Tuubaa ko indi te kat ëllëg ay dàq mbàkke ndax bu njëkkoon de mag ñi daa nañu xiif daawun sol sër yu doy daawun lekk lu neex daaw naan ba màndi daaw tëdd ci tabax yi di sonn nag guddeeg bëccëg te mbàkke coono yépp nag teggal nga nu ko sëñ tubaa teggal nanu ko tey ji mbàkke kan mbàkke noo ngi nii kat di tëdd ci kaax yu rafet di lekk moos lu neex di naan naan yu neex kon lépp sëñ tubaa ko waral te mbàkke ci yow rek la ko jaarale kon nag nun mbokk yi nanu góor góorlu lu dox suñu digg ak sëñ tubaa moo de ak taalibe rek nan ko jàpp bu wóor ban koo caaxaane ndax loo xam ne lii ci nga aj ci nga aj sa tey aj sa ëllëg muy cër bu rëy kenn du ko foowe te Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi ni mu bëgge sëñ Tubaa bëgg ko ko warmaal ay waay mbokk yi nan ko jàpp warmaal sëñ Tubaa warmaal dëkkam bi warmaal njabootam gi warmaal taalibeem yi ay waa ji nanu ko wormaal sëñ Tuubaa ak dëkkam bii dégg ba mu koy sanc moom dong nga woon kenn wettaliwu ko ci pëstéef bëgg a yàlla jaar ko yonent bi sallallahu alayhi wa bu jekkee nag tey ba nëga ni am nu bëgg jëme am po ci biir dëkkam bii ñoon de yërëm na leen dëkk bii day nan ko wormaal ku ko wormaal doo ko reccu tey jii ak ëllëg fa nu jëm waaye wefee di fi def nu warut loolu de warul de loolu de nee na mi ngi koy sañ sañ a digal mbokki taalibeem yi nee na digale wut de nee na da koy ñaan njëkk ngir yéene kenn ku ne am lu baax kon nag mbàkke nun mbàkke noo ngi nii ci say loxo rek ñaanal nu ñu yàgg nga yow yàgg liggéeyal sëñ tubaa sëñ tubaa nangul mbooleem lay ñaanal mbàkke bu baax kon nag mbàkke san nan bu baax noo ngi sant nag ci mboolem turi taalibe yi am na ñoo xam ne li kàddu sëñ Bass mii bu ko waxee waaye mbooleem jàngkat yi sañ Yuusu Joom ñoom ñii ak ñi nekkoon ci alquran ji ak ñi doon sikkurullah ci bisub tey bii ñëpp nee nañu taalibe yi gis nañu ko mbàkke te nangu nañu ko mbàkke ndax liggéeyal sëñ Tuubaa bii ku yàlla bind mënu ko yàq de kanam rekk la jëm Mbàkke kon nag nanu fas yéene feddali laxasaay ànd ak sëriñ bi rek di ko liggéeyal rek tey ak ëllëg gënu jëm kon nag Mbàkke nee na mu ngi jégalu baax Mbàkke tuubal wax ji wax wassalaamu aleykum